اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل كناو سنت يالله جلس يرنتبي صلى الله عليه وسلم ما عند دكيل بولم جلد فمن أنا كتير أدنى بي دي جيتال تشنو بي أكتشن دكيل بي أكتشيار بي سيدي ومولاي خليفة صاحب الفائدة العظمى الشيخ محمد الماحي الشيخ إبراهيم يس حفظه الله ورعاه وحماه بهمة صاحب الفائدة العظمى gannaaw bu ñu ko nuyoo ndokkeel ko ci weeram bi lu tax mën a weeram bi mooy ne firikat alquran bu mag la bu gannaaw bu mu nekkee xalifa Mawlana Cheikh Ibrahim wala la ko jiitu yëpp ci loolu la nekkoon ñu ngi nuyu Seydi Mawla al imam Cheikh Ahmad Tidiane Seydi Ali Cissé naka noonu ñu ngi nuyu euh, Cheikh Mahamadul Mahi mi nga xam ne mooy yoru yore kàddu xadara bi nga xam ne mooy xadara Mawlana Cheikh Ibrahim Niass al alami ñu ngi dalal ñi nga xam ne ci ñoo ñi dalal ci ñu mbokk ci yàlla Seydina Hussein nga xam ne ak ànd ak internet bii di Top Info euh, TV Sénégal yaakaar naa maa ngi ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiix ci waxtaan bi waxtaan bi nag yaakaar naa ne yomb na ñu ngi ci weer bi nga xam ne mooy chahru ramadan allazi unzila fi al quran ñu ko waxee danañ wax ci weeru koor danañu wax ci alquran ak ngeneelam dinañ wax ci guddeem yu barke yi ñuy sappi ci benn di laylatul qadri bi nga xam ne yàlla nëbb na ko ci weer bi waaye nekkul na lépp lu nëbb rek euh, dafa suufee ndax laylatul qadri mi ngi nii yàlla nëbb na ko te fekk mu ngi nekk moo bokk moom moom laylatul xadri moom mooy xayru layaali maanaam mooy euh, moo gën ci mbooleem guddi yi loolu kon dëgg-dëgg nekkul tegtale woon na lépp lu nëbb rek euh, kenn du la xam yàlla kulli xaalin ku wax weeru koor da nga wax alquran da nga wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallama waaye da nga ci laafaale suñu waa ji ñun ñëpp mi Mawlana Cheikh Ibrahim Niass nga xam ne bu ñëwaan ni mu koy fugloo doy na rek ni ko xalifaam bi di continuer Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass ci tafsir alquran Seydi Cheikh Imam eh, Ahmad Tidiane ànd ak moom ci li nga xam ne mooy eh, firi waxu yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di xaddasanaa yi te loolu la Mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne bàyyee naa sama xeet wi ñaar yoo xam ne bu ñu ci jàppee duñ ko rëccu ba ilaa yawmi diin ca ajam googu nga xam ne mu ngi daan tàggatoo ñun ci zahir ndax mos a tàggatoo mosta a ñun te ku ne xam na loolu lu wér la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne maa ngi leen bàyyee ñaar yoo xam ne bu ngeen ci jàppee du ngeen ko rëccu mu mel ni dañ koo laaj na ko lan ak lan la mooy mooy alquran ak sunna kon loolu buñ ci bëggee xam njëriñ li mooy lan rek mooy li Cheikh Ibrahim wax ne ñaar yooyu nag yonent bi waxoon na man xawma ku ma ko gën a dégg bàyyi mu ne kenn mu ne moom xamul nit wala gisul nit ku ko gën a dégg alquran ak sunna te loolu yaakaar naa ne buñ ko làmbee dañ koy daj suñ ko xoolee tamit dañ koy gis jaxaran naxaaran euh, ñu ngi ci li nga xam ne mooy weeru koor mu nekk euh, weer bu barke boo xam ne alquran yaxal na ko waxna na weeru koor ci lañu wàcce li nga xam ne mooy alquran alquran nag mooy lettre bi dox suñu diggante ak Mawlana tabaraka wa taala doy na rek bi mu waxee ne alif lam mim mom mom mom yàlla alif lam mim dalika alkitabu la rayba fi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin boobu dafa melni dafa ñëw rek manam firi deug deug ngeene lu wéru koor ndax wéru koor ci bopam diplôme bi ci yàlla laaj. mooy lan mooy ragal yàlla yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ku ne man na koo firi yéen ñi nga xam ne yéen a gëm alquran yéen ñi nga xam ne yéen la yàlla tànn ngeen nekk xeetu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam faratal naa ci yéen koor ni ma ko farataale woon ci xeet yi leen jiitu woon bu ngeen ko defee rek te taxoon maanaam am ngeen ragal yàlla te kon diplôme boobu ñu laaj ci weeru koor te mooy ragal yàlla alquran ñëw na la téere bii nag lépp jëlal bi ma la koy présenté nee naa la hudan lil muttaqin kon ndekete baax na nga présenté nga fexe ba am diplôme boobu ñu lay laaj waaye dañoo bëgg rek nga continuer ko sa dund bi yëpp mooy ñii ñi Mawlana Cheikh Ibrahim di wax ne wasaimina ad dahra xaafidina maanaam ñoo xam ne seen ad seen àdduna yëpp seen jamono yëpp seen giiru dund lañ koy woor te woor résultat bi dëgg-dëgg mooy ragal yàlla rek ci zahir ak ci baatin maanaam nga bàyyi lépp lu la yàlla tere lépp lu la digal nga def li nga ci man yàlla waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko waxal sa gaa ñi ne leen lépp loolu indi rek nañ ko topp wa ma ataakum rasulu fa xuzuhu wa ma naakum xanu fantahu kon loolu mooy topp yonent bi sa alayhi wa bi bàyyi waxoon bi koy présenté na gannaaw bu ñu rawantee ci mbëggeelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne li war mooy e, ñu topp ko ci ay digleem te bàyyi ay tereem te loolu rek mooy résultat wu ragal yàlla ragal yàlla boobu nag nga xam ne moom la ñu laaj ci weeru koor moom laa la wax na la moom la ñu laaj sax ci mboolem xeetu jaamu yàlla yi ci lan boo demee di aj sax wa tazawadu fa inna xayra zaadi taqwa dëgg-dëgg kon ragal yàlla lu mat a bàyyi xel la te même boo demee sax ci jamono yi euh, li nga xam ne mooy tabaski booy rendi sa xar sax alquran wax na leen ne lan yanaala llaaha luhuumuhaa ki dimaa'uhaa lu yanaalu taqwa minkum kon ndekete ni li ñuy rayante yëpp di uut gàtt moo xam nu mu mën a toll coono boo ci mën a daj yàlla mu ni fexeel ba yow mi nga xam ne yaa ngi uut loolu nag ma indil diplôme bi ma soxla te diplôme boobu mooy lan mooy ragal yàlla mooy ne yàlla mën a soxlawul ndawal yi soxlawul dara soxlawul li nga koy présenté lépp ci mbubu yu rafet yeeg ci teraanga yeeg yëpp lu may ne mbir mi na ànd ak ragal yàlla kon ndekete jaam bi li ma la ko waxee léegi rek ay yëngatoom yëpp ndeke résultat bi lim ci am ëllëg li yàlla wax ci weeru koor bi rek laallakum tattaqun laallakum bu ko yàlla waxee li taqiq mooy ne boo ko defee rek Oustaz Ibrahima Mahamed Diop mu ne mooy ne su ngeen ko defee rek su ngeen wooree ni leen ko yàlla digalee rek ngeen am li nga xam ne mooy diplôme bi te mooy ragal yàlla te ragal yàlla nag dëgg am na ñenn ci ñi nga xam ne maanaam yenn buntu aljana yi nga xam ne ñi ragal yàlla rek ñoo fay duggee ñi ragal yàlla rek ñoo fay duggee rawatina nag ñi nga xam ne dañuy oor weeru koor am na ñoo xam ne ci xeet yi yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy ñi nga xam ne bu weeru koor ñëwee ñoo koy woor di naafile ay guddeem di oor ay bëccëgam di bàyyi tere yi di def digle li ci yàlla digle ñu def ci liñ ci man loolu ñoo ñu bu ñu matalee loolu bu ëllëgee yàlla mu ne danaa leen jagleel benn bunt boo xam ne kenn du ci duggee lu mooy ñi nga xam ne dañ doon woor kon dekee weeru koor du caaxaan doy na rek man la ci ci ponk lislaam yi la bokk jeex na beneen bi ci topp mooy laylatul qadri ci weer bi nga xam ne ci la ci lañ wàcc alquran ci la ñëw ndax guddi googu inna anzalnaahu fii laylatil mubaraka moom la yàlla wax te damay wax ne dëgg la laylatul qadri wax nañ ci lu bari waaye man damay jël ci ki nga xam ne rek moo ma gën a jege di Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ci tànn bi mu tànn guddi gi nga xam ne moom la jël daf ko muy laylatul qadri te Mawlana Cheikh Ibrahim guddi yëpp ma ne atam yëpp sax waxuma weeru koor de at at yëpp laylatul laylatul qadri la ci moom Oustaz Barham Diop mu ne ku naafile at mi yëpp na la wóor na la daje nga ak laylatul qadri waaye ku la weeru koor yëpp tim na la wóor na dajale ngaag daje ngaag li nga xam ne mooy laylatul qadri laylatul qadri nag yonent bi li mu gën a saxaal mooy ci fukki fan yu mujj yi ñu ngi dégg ñun ñëpp Cheikh Mouhamadul Mahi Seyda Ali mu ne bàyyi daan na wax na bu ñu demee ba passé ñaar fukki fan yu njëkk yi mu ne loo sàggan sàggan sàggan rek war ngaa fexe nag jokkale sa say naafile say jaamu yàlla mboolem xeeti jaamu yàlla yi rek jokkale ko ci fukki fan yi nga xam ne mooy fukki fan yu mujj yi di euh, ashrul awaaxir di fukki fan yi mujj yi mu ne nag yonent bi mu ne nañ ko seet ñetti guddi yu tool yi wala nañ ko xool ci guddi yu tool yi fii taasiatin tabqa wa fii saabiatin tabqa wa fii xaamisatin tabqa yonent bi sallallahu alayhi wa nag am na ñu wax ne waxoon nañ ko guddi gi laylatul qadri ban bés la ñii ne euh, am na coow lum daan réglé ñii ne am na lum daan réglé ci mbiru lislaam Euh, ba mel ni yàlla daf ko fàttaloo guddi googu waaye li ma ci namm ci loolu rek mooy ne yàlla namm nit ñi jëriñu rek moo tax mu nëbbu guddi googu nga xam ne mooy laylatul qadri te moo Mawlana Cheikh Ibrahim ma ne boo demee ci saar bi nga xam ne suratul kadri ñun ñëpp ñu xam ko inna anzalnaahu fii laylatul qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri laylatul qadri baat bi dafa ñëw ñetti yoon ci saar bi te laylatul qadri boo ko xisaabee maanaam boo xoolee ay xarafam dafay toll ci juróom xaraf juróom-ñeenti xaraf nag bu ñëwee ci euh, saar bi ñetti yoon maanaam moom laylatul qadri bu ñëwee ci saar bi ñetti yoon boo xoolee ay xarafam dafay tombeeg mu nekk vingt-sept xaraf ibnu abbas loolu la wax radiallahu moom mu ne lim yaakaar na mooy laylatul qadri mooy guddi vingt-sept mooy ni ko euh, guddi ni nga xam ne noonu la ko waa di tàmmee di def yaakaar naa ne mooy dimanche bi di ñëw waaye nag wuute wuuteeg na ñi daf bi passé ci ba mu desee juróom-ñeenti fan am nañ ñi def ba mu desee li nga xam ne mooy euh, juróom-ñaari fan am nañ loolu yëpp mën la ngëneel la waaye ba léegi Mawlana Cheikh Ibrahima waxul kenn na ko euh, saba wa ishrin ci Ramadan bi mooy weer mooy mooy li nga xam ne mooy leelatu xadri moom loolu la ko xelaatam may mu ànd ci ak Ibnu Abbas dëppoo ci ak Ibnu Abbas kon ndekete nee naa la guddi gi li mu rëy rëy rëy yëpp. lenn rek la ci yàlla bëgg mooy fexe rek ba jom ba jaamu yàlla bi am ci ngëneel nga yokk ci ragal yàlla waaye di ci tudd yàlla lu bari di jàng alquran di baalu yàlla ndax leelatu xadri boobu li mu màgg yëpp yàlla lim ci li muy gaaral lii malaaka yi di ñëw pour nit ñi gaaral ko ci rek ñaan ko yàlla mooy yow yàlla ku bëgg ko yow ku bëgg nit ñu maanaam danga bëgg ñu lay jéggalu te jéggalaakoon nga yow yàlla yàlla na ngi jéggal te yërëm ñi loolu rek lan te nit ki dëgg-dëgg yàlla dajale na ko ci koor yëpp nee na ko boo waree fukki fan yi njëkk yi ma jéggal la maanaam ma yërëm la fukki fan yi ci digg bi mu ne man ma yërëm la fukki fan yi mujj yi ma gore la ci safara kon fexeel nag ba laylatul qadri boobu sax li muy màgg màgg màgg bul bul ko kar rek ci dix dix jours yi mujj yi fexeel ba laylatul qadri maanaam nga nga fexe ba jëm koo làmbatu ci mboolem guddi weeru koor yi loolu boo ko defee dëgg-dëgg am nañ jortu ne danga nga dajeeg laylatul te képp koo xam ne dajee nga ak malaaka yi xam na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jibril dana ñëw alayhi salaam ànd ci ak mboolem malaaka yi jibril dana ñëw ànd ci ak mboolem malaaka yi waaye liñ yaakaar rek mooy wàcce yërmaande yàlla ci kaw jaam yi waaye tim yërëm leen waaye tim bu ëllëgee mu ñu nekk weeru koor bi nga xam mee bu ko yàlla nangoo dafay nekk ëllëg jot boo xam ne dafay dox sa digganteeg safara ndax asiyaamu junna la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax kon ñi ngi ñaan yàlla niñ ko tàmbalee ci bismillah ñi ñaan yàlla yàlla may ñi ñi yéggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin waaye ci li nga xam ne mooy eh, gëm yàlla ak ci wërsëg ak ci li nga xamne moy katan kattan ndax ku yalla may kattan da nga meuna daf mbolam xetu jamu yalla ni koy baye di ñaané ci ñaan gi mu rabbu ci ramadan muné ne wa alhimna rushda fihi fi sair akami. yow yalla yalla nak ñi yenké wenal ñub nga daf ko suñu mbolam yi cër ak mbolam lo xamne rek teural nga ko ci ramadan bi nak ku ko daf da nga am fay ak yalla rek te wéru ko yalla koy fayal bopam baye muné ne yow yalla yalla nga jël suñu mbolam yi rek moñ ko ci lan ci li nga xamne moy top yalla waaye topp goo xam ne duñ ko mooy ba ilaa yawmi diin ñi ngi ñaan yàlla yàlla may ñi li nga xam ne wan ñi li nga xam ne mooy dëgg bañ gis ko xàmmee ko te topp ko wan ñi tim li nga xam ne mooy caaxaan ñi ba nga xam ne gis nañ ko ñi moytu ko di ñaan yàlla Seydi Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass yàlla yàlla gën ko fa yàggal di ñaan mboolem toppam baay fu ñu mën a nekk ci àdduna bi te toppam baay mooy àdduna bi yëpp ndax bàyyi lim mu wax ne euh, man xeetu yonent bi sallallahu alayhi ñoo ma yitteel su fekkee rafetal nga sa digganteek yàlla rafetal sa digganteek mbindee fi rek bàyyi mu ne yow ci sama njaboot nga bokk kon ndeke njabootu Mawlana Cheikh Ibrahim lu yaatu la ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñi ñu yeggali koor ci jàmm ba yeggali li nga matal li nga xam ne moom la ñuy Mawlana tabaaraka wa taala digal waaye lépp lu tere yàlla yàlla buñ ko jegee jegeeti mag ñi dañuy ñaan ne yow yàlla lu baax moo gën a jafe yàlla nañ ñi ko yombal bañ mën koo def waaye lu xaraam moo gën a yomba daf yow yàlla yàlla na nga ko jafel suñu cër yi ba nga xam ne duñ ko mën a daf ba ilaa yawmi diin te yàlla nañ ci làq sa ngërmaane te buñ ko làqee mooy làq nañ ngërmaane moolaana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yàlla nag fekkee ko at yu bëri di ñaan yàlla ñi nga xam ne jiitu nañ yëpp yàlla jégal leen yërëm leen waaye ñu ngi leen di ñaanal yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw jël li nga xam ne mooy waxtaan bi ànd ko ñun di euh, euh, Top Info TV Sénégal di ñaan yàlla mboolem matukaay yoo xam ne soxla ngeen ko rek moo xam ba ci télé mboole matériel yi ngeen soxla rek yoo xam ne jumtuwaay yi laaj na ko jamono laaj na ko rek yàlla na yàlla yombalal leen ko te yéen a ciy liggéey liggéey bu rëy Cheikh Mouhamadul Mahi euh, Cheikh Ibrahim Niass nee kenn gënul leen ëpp cër ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne balliqu anni walaw aaya jotal la leen ma donte benn texte la loolu ñi ci gën a gaaw te ci ëpp c mooy yéen ñi nga xam ne ñu mel ni Top info TV Sénégal ñi ngi ñaan yàlla yàlla yombalal leen seen mboole mi yëngatu seen mboole mi dal te lépp li ngeen soxla ci liggéey yombalal leen ko barke Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uliq walxatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi alamin wa kullu aamin wa antum bi xeyr wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh